asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñi ngi nuyoo di tàmbalee ci nuyoo bi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam di gën a santati suñu yaakaari tey ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul te jaaraamaal maam Cheikh Ibrahima Fall Baal ñaan Cheikh Ahmadou suñu borom yagal ko fi lol nalam yep muy naldi di naldi di naldi di naldi di nya agale ñu and ak mom lepp di seere mu ak koog jëwriñam bi suñu am di Modou Mbenda ñu mam Seyraane Fall suñu borom dëgg la taxawaayam te yokk ko wér mu yag fi lol and ak sangam bi ñu and di naldi agale, ci bakki Sidi ibrahim mbokk yi jotay bi tay nak bu ko gisee jotay la bo xamne euh bisub wota la bis bi nak muy bis bo xamne Eh, kuréel bi ñuy wax ahfaadu maam Cheikh Ibrahima Fall mooy kuréel boo xam ne dafa lëkkale ay sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo amal bis bis bi nag di kañ la cinq safar muy juróomi fan ci safar bu ne la 18 18 safar bis bu njëkk bi ba ca topp ba ca toppaat ba ca toppaat mu juróomeelu fan bi lañ ko bëgg amal li amal nag lum doon mooy amal porte ouverte muy waxtaan woo xam ne ak ak cant nga ci biir ak njàng nga ci biir ak ndigal nga ci biir muy euh, euh, porte ouverte boo xam ne dañ koy defal ki nga xam ne moo ñu boole te kenn nangu ko ak morom ku ci nekkit nangoo kenn ëppale la ci muy maam Cheikh Ibrahima Fall loolu nag ñu ngi koy def ci ndigalu sëñ Amdi Moodu Mbend mi fi nekkal euh, si maam Cheikh Ibrahima Fall ak ci ñaanu mm, Cheikh mamadou Mountakha mi nga xam xalaat bi ak digal bii bokk na ci li ñuy inspiré bañ nañ ko def ndax gannaaw bañ amee ndigal ci sëñ Amdi Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall ci bis bii kat euh, euh, euh, kuréel bii kat ànd na ci tey képp koo xam ne bokk na ci njaboo tamit bu ko jotam mayee nañoo ànd ak ci ñun te dara génn ci da ko bëggam rek ci liggéeyul sëriñ bi ànd ci ak moom ba si ba mu jeex tàkk ba ñu jógee ci loolu ki nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba Cheikh Mountakha ñu demoon ku ji ci moom ak ñaan ak it ah, ah, ah, ngir suñu borom musul ñu te fuñ bëgg àgg sëriñ bi gàttandu ñoo ko gàttandu ñoo boppam. ba cee xamal ko nag it nag suñu yéene bokk na ci yaatal liggéey maam bi ñu xamle kan mooy Cheikh Ibrahima ba mu ñu dégloo ba noppit xamal ñu ne wàllum nguur li ngeen def am na solo lool te war na ku ne te Cheikh Ibrahima ku nekk war na koo xam. waaye digal naa leen na ngeen fexe yéen ñëpp góorgóorlu ba gën a xam seen maam Cheikh la doo ko xam di loolu it nag moo ñuy gën a inspiré xalaat loo ñu ne nañ def lii woo ci borom xam-xam yu bari yoo xam ne am na luñ xam ci ci ci suñu maam ñu weccante ko ci ay xalaat weccante ko ci ak xam-xam di ci woo ñëpp nag loolu moo sabab woote bi bërki démb ñëw nañ fi jël si ndigal bañ bañ xalaate ne war nañ ko mën def ci safar bi xalaat rek lañ amoon ba ñooy wax ko euh, ki fi nekk euh, maam Serigne Fall suñu borom di def lañ ci tawféex ba ba mu jox ñu ci ndigal xam naa ne loolu buñ ci àggee suñ daam soode mii fi nga ne moo yor dana wax ci lu jëm ci loola kon mbokk yi lii di mooy woote bi ñu ci woo ñëpp nag ñi ci woo ñëpp nag képp koo xam ne bokk nañu yow maam Serigne Fall ak kuréel ba mën di bokk yëf yi sa yëf la boo woo nañ la ci bëgg nga ñëw wane ci sa bopp bu baax a baax xam ne yëf yi sa yëf la ñi ci woo suñu mbokk mbàkke mbàkke yëpp ñu bokk Serigne Touba ak ñu bokkal maaram yëpp waaye ñi ci bokk woo képp xam ne ñoo bokk ak yow Cheikh Ibrahima Fall suñ Modou Rokhaya suñ suñ suñ suñ Modou Rokhaya Fall yi nga xamne mom moom mu meññi Mame Seyna Fall ak ak si Mame Saliou Fall ak képp kuy mbokkum képp ku dëkk gébb rek ñi ngi lay woo ñi ngi woo Cheikh yi ñi nga xamne ci boppam ñu and ñu àndoon ak suñu mam Cheikh Ibrahima Fall ci liggéey ak seen njaboot yëpp ñi ngi leen woo ñi ngi woo ñëpp daal ñu ñëw ci bis bi nga xamne ci boppam bis bu ñu ñor la ndax ndigal lañ ci am ndigal loolu nag ci boppam ku jëfee ndigal amuk pay pay googu na lañu yéene jullit ñëpp yéene ko taalib yëpp moo tax ñu ngi ci woo ñëpp ñu ngi ñi ñi ñi ngi ñaan nag suñu borom mi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy sottal lu sotti moo ko sotti yàlla nañu defal tawféex bañ am ci li nga xam ne ci boppam mooy kaw suñu jot ñu àgg sax jàmm mu jàmm sëriñ bi ni mu ñu ko bëggalee woon ñu defee ko noonu ñu am ci ak dégg ak topp ñu ngi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi nuyu mbokk yi ñu teewlu yëpp ci turu jëwriñu Cheikh Fall ji di sëriñam di Fall mu sëriñ Modou Mbenda di ñaan yàlla sunu borom mu téyel nu fanam wi ak wéram gi ba liggéey bi mu taaw fu mu ko bëgg a àggale mu àggale ko fa ànd ko taalibe yëpp di jottali ab nuyoo bu bàyyi ko ci moom mm, jaar si e, njabootam gi nga xam ne ñoom la ñu toogal muy ak njabootu boppam di njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall jëm si mbooleem njabootuk sëñ Touba gi waaye nag jiite jëkke ci jëwriñam ji di kilifam di Cheikh Modou muntaha. ñaan yalla sunu borom yagal ak dundam te wëral ay cërëm di fédeli ay cant ak i ngërëm ak i ñaan mu jëm ci mboolem talibé yi si taxaway yépp yu ñu am Sindi ndigal yi nga xam ne waxtu wu ne mi ngi bayiko ko kër Touba di tabbi kër maam Cheikh ibrahim Fall te waxtu wu sé rek ñëpp ma si am taxaway bi nga xam mom rek la si sëriñ bi bëgg mom la ci sénu jataay bii nag ñoo am tey jataayub ndigal la ndax sëriñ bi moo nu jox ndigal ñu ñëw fas yéene ànd ak ñi nga xam ne ñooy njaboot gi tënku si eh, ahfaatu maam Cheikh ma Fall di sëtaat yi nga xam ne ñoo àndandoo ñëwoon fi sëriñ bi won ko seen pas-pas ak seen yitte si fas yéene booloo fas yéene ànd ànd si liggéey bi nga xam ne mooy liggéey maam Cheikh Fall di li nu fi boole li nga xam ne moo waral sunu feeñ àdduna ñu ñëw si sëriñ bi sëriñ bi nangul leen ndigal loolee nangul leen liggéey boobee waaye nag tegoon leen si yoon woo xam ne yoon woowee wàcc ñu ko benn yoon loole lii sunu jataay bi tey dafa tabbi si liggéey boobu nga xam ne walla ndigal loolu li nga xam ne sëriñ bi joxoon na leen ko sëriñ bee leen santoon ba nga xam ne ñëw nañ ba leeral ko liñ bëgg lépp sëriñ bee leen yabaloon ci jëwriñam di du Modou Mountakha ngir bëgg rek ak yaatal bañu ñu nonu ko serigne noni Lamp waxee noonu nii la ko Cheikh Modou Mountakha euh, leerale yaatal ko ci seen kanam ñom ñëpp xamal leen ni Cheikh Rafal day na ngeen fas wut ko xam waaye na ngeen ko xamlé ngir nga xam nak ak xamlé faaw nga jang kon liggéey bobu ci lañ nek muy jang momi lolu mo dan waral ñu wote bis bo xamne bi dañ ko amal juroomi fan ci wéru safar di ko woote fee sa mbaarum daaru xuddoos muy liwaayul hamdi woo fa ak ay borom xam-xam yoo xam ne nag ñu yàgg gëstu lañ ñu am ndimbal lañ ci dunduk maam Cheikh Ibrahima akub liggéeyam ak ñi mu xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi fas yéene yendu fa ak ñoom def li nuy wax buntu yu ubbiku mooy porte ouverte mooy képp ku am xam-xam boo xam ne xam-xam bu wér la boo xam ne mën nga koo séddoo ak ñi nga xam ne seen yitte mooy liggéeyal Cheikh Rafal rek mooy xam Cheikh Rafal ak fas yéene koo xamle ñu woo leen ñu daje foofee sa bërëb ba yendu Fall liggéeyal sëñ Touba ak maam Cheikh Raye Fall loolee lañ tàggu si woon sëriñ bi laaj si ndigal sëriñ bi jox leen si ndigal waaye sëriñ bi sant nu nu ne nu jottali ko si mboolem koo xam ne kii ah, yaa ngi yaakaar nga maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne lii ñuy def dañ cee am ndigalu sëriñ bi sëriñ bi sàkku na ñëpp ànd kook ñoom képp koo xam ne kii mën nga ko nga ànd ak ñoom si liggéey boobu yi ndax ndigal la loo xam ne wala tawféex ja loo xam ne mi ngi bàyyi ko si jëwriñam ja di Cheikh Modou Mountakha moo leen sant ne leen na ngeen wut a xam Cheikh Rafal na ngeen ko wut a xamle kon nan ko jàng kon nan ko yaatal kon si taxawaay boobu rek si lañ nekk sëriñ bi daal wax na ne mi ngi sàkku si mboolem ku yaakaar maam Cheikh Rafal mboolem ku bëgg lu baax mboolem ku bëgg xam Cheikh Rafal euh, nga fekk si njabootam gii juróomi fan ci wéru safar fessa daru khudus sa mbar momé mbaaru mag momé inshallah allahu ak borom xam-xam yi nga xamné war nañ fa nek ci ndigalu serigne bi ngir def ay waxtaan ngir sotante fa ay xalaat ngir seddo fa ay xam-xam jangale fa li nga xam mom lañu séra faal batalé inshallah allahu baangi sante ñep kuko man nga tew and ko ak ñom day ñaan yalla sun borom sa jam te lepp luñ ci def daje ngeureumul serigne bi eh, serigne bi nak di séré ni mi ngi len di sant di am ci ñom yaakar bu baaxa baax ndax yoon wi ñu jaar yoon wo rek la mom xam nako ko te fassunu ko yéene wacc serigne ba ngi len di ñaanal yalla sa borom àggale len fu ngeen bëgg ag yalla ngeen mucc ci ndog yépp ndax yoon wi lepp ngi ci seen loxo ndax stade ya, yi njabotuk serigne touba ngi ci njabotuk maam tierno ngi ci njabotuk Cheikh Sa ngi ci njabotuk serigne Mandoumbe njabotuk serigne Masamba jabatu mam Cheikh Anta ñepp nga ngi muy ño xamne dañu dañoo ko si mam Cheikh ibrahim Fall wala seen maam ko si mam Cheikh ibrahim Fall ba ñu ndayoo si mbaa ñu bàyyi si loolu nak yombut kon nak xamna ni ndimbalu sëriñ bi rek nako may kon nu fasiyene teye ko te sam ko te wagar ko bu baax kon nak ñi ngi joxe euh, ndaje le 5 si wéru safar inshallah xamna dina fekk xagn na mbale mi ag ñun ñepp nak ñu maase andando fekk nak njabotuk Cheikh rafal gi foofee sa liwaayul hamdi sa daaru xuddoos fas yéene ànd ak ñoom képp koo xam ne am nga loo si mën a indi ah dugal ko si lu mu mën a doon bu dee xam-xam la bu dee loo xam ne eh, taarix la wala tawféex joo mën a indi nga indi ko sëriñ baan ngi sàkkoot képp ku fa mën a indi lu jëm si wàll ay xéewal moom it mi ngi sàkku si njabootu Cheikh Rafal gi ñoom it loolee ñu bàyyi ko xel ndax fa lañ fa yéene yendu ah, lépp lu aju si jumtu li ñu war a yendoo ah sëriñ baa ngi si soññee ku ko man nga indi ko defal ko Cheikh Rafal kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di waat bu baax ci turu daara yi fondation Ahfadu Cheikh Ibrahima Fall ma amee njiit gi di président bi ñëwaat comme li ci sunu kilifa yi wax rek daanaka mënu ci woon moom nañu yem képp li sëñ làmp wax di suñu jëwriñ sëñ daam Soda di porte-parole xalifa général des Baye Fall wax ko. daanaka moo doon ci yem xanaa li ñuy ubbiwaatee rek dof sof ko ci seen i kàddu weesuwut li nga xam ne ñoom lañ seqal bokk ak réew mi bokk ak ñoom liggéey bi bokk ak ñoom yoon wi ñu woo leen ci turu fondation bi ngir ñu ñu mën a xam ne liggéey bi ñun ak ñoom ko bokk li ci jiitu nag mooy ñi nga xam ne ñoom lañ bokk ak réew mi ñoom kat ñooñu ñu yilif ndax ñoo ne ñun kat ci réew mi lañ nekk ñoom ñoo yilif réew mi kon ñooñu ñu yilif donc lépp lu xam ne. lu jëm ci spirituel mu ngi koy def yaakaar na war na ko ànd ak temporel muy exécutif mooy ñi borom réew mi ak ñu ko làmboo ñu fas yéene nag ndax am na loo xam ne tamit ñoom rek lañ ko mën a sañ àndal moo tax ñu ciy jiital ci woote gi ak nuyoo gi di ko ci woote di woo président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay di ko woo ci bis bi nga xam ne ay njabootam ñooy taxawal bisub xam-xam te li mu woote wote na mbirum xam-xam ak taxawat rew mi te japp na ne bokku na cëslaayu layu bii bi biñu ko seigne muntaha di jox di xamle Cheikh Rafal ndax Cheikh Rafal ñariñ kese la amana buñ ci sukkandiko lu bëree bëree bëri bëri bëri manen ko ñongal ci rew mi ci ñangalem ak ci jëfam ñu tek ci ki di premier ministre rew mi di Usman Sonko ñun tamit ñong koy woo ci bis bi waye tamit di ci woo le ministre des finances Cheikh Diba di talibé ci kër gi waaye tamit bokk ci yoon wi ñu koy woo ndax li ñuy li ñuy wax tamit day laal économie kon moom it am na ci taxawaay ñu ciy woo le ministre des affaires étrangères moom it ñu ngi koy woo ci bis bi ndax am na lu ñuy waxtaane ci bis bi loo xam ne ci wàllum côté diplomatie la te moo ko amee ñu ci woo le ministre de l'intérieur ndax moo yor kaaraange réew mi te fu ay nit daje moo war a sàmm seenub kaaraange kon ñoo ngi ko ci woo ñu ci woo ministre de l'enseignement supérieur moom it ñoo ngi ko ci woon ndax lii ñuy wax ci waxtaane ci ay thèmes day laal ci wàllum jàngale ak xam-xam la donc te moom moom kon ñoo ngi ko ci wax woo bu baax muy sëñ Abdourahmane Diouf ñoo ngi ci woo le ministre de l' éducation nationale di Moustapha Baba Guirassy ñoo ngi ci woo tamit le ministre de formation professeur Moustapha Sarré ndax tamit li ñuy waxtaane tamit lu jëm ci wàllum formation professionnelle da ci am ñoo ngi ciy woote ministère ministre bi yor wàllum culture muy soxna Khady Diène mi nga xam ne moom it moo yor sport ak jeunesse ndax li ñuy wax tamit dafa laal culturel te culture lépp lu jëm ci cosaan ak yooyu yëpp moom moo ko làmmool waaye bu ñu soo ci ñoom tamit ak mbooleem képp koo xam ne nag bokk na nag ñoom gouvernement bi ñoom te gis ne bis bii ñuy def kat am nañ ci intérêt wala war nañ cee teew ñoo ngi leen di woo di leen ci seen di seen seeni jàppale wala seen i jàppale service ñoo ngi ci woo bu ñu paree ci ñoom ñoo ngi woo de la région de Diourbel moom it ñoo ngi koy woo di rafetlu taxawaayam ci région de Diourbel moom it comme moo yilif raison bi ñu koy defee ñoo ngi ko ci woo waaye di ci teg ay ay collaborateur am di préfet département bu Mbacké waaye di ci teg sous préfet bu Ndaam bu Touba di ci teg tamit le maire de Mbacké ñu ko ci woo ndax ñoom ñoo yor yore mairie yi yi seq diggante Touba ak Mbacké ak maire Touba ñoo ngi ko yow Abdou Lahad ñu ci woo tamit comité d'organisation màggal Touba ndax bés bii kat bi ñu ko sëñ bi joxee ndigal bi ñu ko joxee mu doon ñu war a see def jox ndigal yi tamit yaakaar naa ci programme màggal gi lañ ko dugal muy weeru safar bi te ku ne safar nag ne comité d'organisation màggal gi te ñu teg ko ci loxo Cheikh Mamadou Bassir moom sëñ Abdoul Khader moom it ak waa comité d'organisation ñoo ngi leen ci woo ndax ñu lii ñu def kat ñoom dong lañ koy defal te ñoom rek lañ lañ lañ ciy jàppale. ñoo ngi ci wooyi tamit képp koo xam ne moo xam député nga. ñu député yi nekk ci région bi rawat na département Mbacké ñu mën cee lim Serigne Cheikh Thioro Mbacké ñu mën cee lim Serigne Abdou Mbacké Ndaw ñu mën cee lim euh, ñu mën cee lim Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ñoom ñëpp ñoo ngi leen ak mboolem ki ñëpp ñoo xam ne rek ay député leen te seq région bi ñoo ngi woo di ci képp koo xam ne chef de service nga wala ngay autorité locale moo xam ñun ñëpp ñoo ngi leen di woo ci bis bi di xam ne bis bi tamit seen bis la ndax tamit fi bu ñu ci def lépp rek ñun ñëpp ko ànd rek ñun ñëpp ko bokk waaye tamit ci turu fondation bi ñoo ngi ciy woo képp koo xam ne rek maanaam autorité nga moo xam autorité religieux nga étatique wala lu doon ñoo ngi la ci woo waaye di ci woo ñëpp ñun bokkal nag njabootu Cheikh Rafaal te ñu ay kuréel ni ñun ñu mën caa lim Jazbul Murid ñoo ngi ko ci woo ñu ci woon caa lim alalu maam Cheikh Rahima Fall ñoo ngi leen ci woo ñu mën caa lim daayira Zikarullah ñoo ngi leen ci woo ak mboolem daayira moo xam dabe ndab moo xam ñëpp rek ñoo ngi leen ciy woo ci bis bi ñun bokkul kër gi ak ñi nga xam ne li mu li mu ma leen ñoom ñëpp rek képp koo xam ne rek Cheikh Rafaal mooy sa bunt ci yoon wi ñoo ngi lay woo ci liggéey bi comme ni ko sëñ Dame Soda waxee ci turu sëñ bi waaye tamit ñoo ngi woo ñi nga xam ne tamit danoon doon suñuy naataangoo yore fondation ñu tuddee leen ñu am ay fondation soppi Serigne Fallou ak som fondation sopp Serigne Saliou ak képp yoo xam ne ñoom ay fondation leen ñoom itam ñoo leen di woo ci bis bi ndax xam ne ñoom ñooy invité d'honneur yi bis bi ndax kenn ku ne ci ñoom am na limu place ay toowukaay yu ñu leen réserver ngir wane ne liggéey bii ñu ànd di liggéeykat benn rek la mën a doon ndax lépp rek si Serigne Touba lañ koy sotti kon nag ñoo ngi ci woo te xam ne bis bi ñun ak ñoom ko bokk te ñoom a ko àndandoo waaye ñoo ngi ciy wooyee tamit képp koo xam ne tamit moo xam daayira wilaya ak daayira day daay daayira mooy daayira murit professionnel mooy cadre yooyu formé seen daayira di di ci di jëfandikoo xam-xam di ko joxe addiya yi it ñoo ngi leen ci bu wér. di ci wow waa waa waa Rawdu Rahaim di ci woo waa daayira waa Axiba bu daayira sëñ sëñ Moussa Ndiagne waaye di ci woo rek ñëpp rek xam naa ni ku lim juum waaye liñ bëgg a tënk rek mooy woo ci ñëpp waaye di ci wow ñi nga xam ne tamit ñoo yor jumtukaay xarala yi moo xam média bi la moo xam ay télévision la organe de presse yëpp yu nekk fii ci réew mi jiital ci ne ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk dëkk bi ñuy organe de presse yi ak représentant yi nekk ci dëkk bi ñoo ngi ci woo daaru bayre nag moom sunu sunu daaru bayre ndax yoo site kër gi la kon lépp liggéey bi tamit moo ngi noonu kon ñoom it kenn jiitu leen ci liggéey ak mboolem site yi nga xam ne ñoo bokk seen organisation ci kër gi mooy fédération euh, commune yi mooy association yi bi ndajale seen bopp yëpp ñu am site wala rajo moo xam tele la te ñu aju ci kër gi te ñu def seen association ñoom ñëpp ñoo ngi woo seen turu fédération ñoo ngi leen jox sunu taala seen loxo waaye di ci woo tamit waa daayira Touba ca kanam ñoom it dañoo am cër ci bis bi te jox na leen ko te ñoo ngi leen ci xaar lépp nag maanaam mun ne suñu koo lim waaye ku ma limut na nga xam ne sans di la matadi doomu aadama la sans matadi la man. xanaa rek ma fàtte lim ñenn ñoo xam ñoo ñoom dañoo bokk dëkk bi te li ñuy def da leen a ñeel muy waa association commerçant wu dëkk bi muy ñoo ñooñee tamit ñoo leen ci woo wax leen bis bi ñun ak ñeenu ko seek ndax li ci jërgee ci xam-xam sëriñ bi ni mu ko bëggee woon mooy wun paree ñu jëfandikoo ko te ñoom nag. ñoo toll ci jëfandikoo ko ndax ñoo yor ci économie dëkk bi kon ñoo ngi leen ci woo woo ci ñëpp rek isbu tarxiya tamit ñoom i kenn jiitu leen ci bis bi dem nañ fa ñu dalal ñu wax dëgg yàlla ñu dalal ñu dalal ñu am solo te ñu ànd ak ñoom bis bi kon mbooleem rek kuy dégg suñu kàddu ñu lim la ñu ñàkk laa lim na nga xam ne ki doon lim moo di waaye eh, lim bi gën naa yaatoo nii képp ku dégg kàddu kii na nga xam ne moom jàppal ne moom mooy sa invitation ñu fekk la ba sa kër wala fa nga nekk jox la ko ci ak ñaari loxo ngir rek sàkku ànd ak yow liggéey bi nga xam ne sañ sëñ xaa Mbacké Bassirou moo ñu ko sant te ñu tàmbale ko nag ci première édition ci weeru safar bi. waaw ñoo ngi ciy woo nag tamit buntu kër Cheikh Ibrahima Fall yëpp muy fukki buntu kër yeeg benn yëpp ñoom ñëpp am nañ ay ay représentant ci biir liggéey bi ñoom it boo ñoom it ñoo ngi woo bu gis sëñ am di sëñ sëñ Mbacké Fall. sëñ Amdi jëwriñ ak sëñ fallu da nga xam ne ñoom ñoo leen fi teewal bundu kër yi yëpp am nañ fi ñu leen fi toogal ndax wane na liggéey bii xooluñu ci ax axfaadu xooluñu ci keneen sëriñ Muntaxa moo ñu jox ndigal ñu ànd kook njaboot geek taalibe yeeg soppe yeeg ñëpp ñu fa seen cee jëf kon nag li woote baa ngi noonu ñu xam ne daal liggéey baa ngi noonu di wax rek kon ñu joxante ñëpp rendez-vous samedi mille vingt 2024 ca mbaarum daaru Xuddoos bu ñeenti waxtu jotee foofu incha allah rabbi jërë ngeen jëf laa ilaha illallah laa ilaha illallah